mi da ngay woote ba sonn man dinaa dugg ci whatsapp bi sax allo. kooku la xaarim Sowet. allo waaw xaarim yow tamit nag doo dégg yow tamit nag ah déedéet téléphone bi nga waxoon nag na ñëw nag xaarim nag yow tamit yaa ngi kaaje yaa mboose jox na ma mboose jox na ma li ma waxoon suukaru koor bi ñëw na yow tamit na lii ñëw tamit nag da ngaa dëgër boobu xam naa sax moo lay jeex na foofu del woor ko ñaar mu koy def waaw bye bye coucou à votre maman à votre équipe tout ça dooy nga nag oh mu ñu ko yaa dooy booy wax ak tubaab foofu nga def yëfi tubaab yow yow yow yow daa dawee <laughs> oh. mais nag mu ñu ko ba jàpp lananti la est-ce que xam nga ne fan yii léegi tubaab la ah à cause de tubaab bi nga waxee noonu si laa ko jëlee ah bon léegi su ma dee fay facture ndox du ma sonn. waay waay pourquoi ça. sama facture ndox nu ma neex laa koy fay dootuma dootuma buuxanteeti. ah di rang bay bëgg a dee. comme aju nga nag yaa nga nële aju nga. xam nga fan laay dem. waaw ci wari ma ko bi. wari ma ban. wari ma fa laay dugg. ah fa laay dugg daan na fa dagaj. te nag loo ci xamul mooy papa gay ma koy jox 3 jours avant délai jox boole ko téeméeri dërëm. waaw su ma demee daal di fay sama facture ndox. te loo ci xamul mooy boo fayee ba noppi. waaw le point vous rentre à votre facture. Oh, oh, oh, I don't care. <laughs> te nag li ci daaxal nag mooy. waaw foofu mën nga faa fay sa facture courant. waa mën nga faa fay sa facture télévision. ay bon de assa sax mën nga ko ay bon de crédit <laughs> ay assa ay assa de crédit <laughs> xam nga léegi bu ndaw laa nag. bon mais temps yii moom yaa ngi artu artu bien le français. ay assa de crédit. la ay assa le point vous facture. Oh. ay <laughs> facture de télévision. yow comme xam nga fi mu toll nii uh-huh. la costume bu verte. bu verte loolu ku loolu wari la defal la duma fës nga la laa koy waxal. waaw naan ko waari waari. waari yaa jàpp sama facture fayal ñu te di kew ña lu dul téeméeri dërëm <laughs> le point rendra votre kombe kombe waa wàññi leen wax ji noppi nañu waaw waaw dafa soof soof bi ba léegi kii bi kii doxaan ba pare bañ ko ko fa bari dem lañ ko jàpp fii benn femme bu doon doxaan naan soxna may mbaax kee dafa fekk ne du dëgg mu ne soxna may mbaax waaw dafa fekk ne du dëgg benn femme bu gàtt la doon doxaan boor bi loolu xanaa nag moo ko ba pare femme bi un lay sol daal la muy sol un lay sol ku baax ñu noonu ku xam teraan barke weeru ko asalaamaaleykum waaleykum salaam Papa Gueye ça va bien ça ça Clarisse ça va ça va ça va Clarisse foo demoon dama ko ñëwoon saf kër Matar Gueye Eh, euh, saf saf. oui bàyyi doomu jàmbur bi ngay génne. surtout si cheru Ramadan bii. bàyyi loolu wala nga tàggu ma. su ma fi nekkul bintaa ngi fi. nga nga nga tàggoo. man new ma fi ci kër gi. Euh, Diop Fall ngi nii nga tàgg ko. te ci ñàkk na jom torop. mu amati waaye saf dégg man yow laa yoo xam. je kilifa boo ko xoolee xam ni kilifa. je t'écoute. ku mat kilifa boo ko xoolee xam nit ku mat kilifa la. donc la ngay fen. waaye day fen waaye day fen. waaw Diop mais déglu rek déglu rek je t'écoute nit ku am diine boo ko xoolee xam nit ku am diine la. nitu yàlla te benn la ci kër gi muy yow kon yow laay waxal. man lu ma nitu yàlla man. Diop bàyyi ko mu wax. Euh, keroog daje nañ ma jóge ju jumaa ji. loolu rafet la maa ngi koy rafetlu. action ah. yooyu dee ko def. Ah. yooyu baax na bi ñu demee ñu waxtaan man ak yow nga ni ma. yow kon na nga te na ngay dem jàq. ah papa jullit laa nag. ah lii de soo ko defee nga doon sama xarit. Ah. nii la même su dul weeru koor sax. Ah. nii dafa baax. ngeen di dem si jumaa ji. ak mm. wala jàq yi di julli. loolu baax na. te incha allah loolu soo koy defee. Ah. yow fii dara du ma la fi bañal dara. loo bëgg incha allah rek ni nga ko am. jërëjëf dégg nga eh, bi ci bi ci des rek mooy. yaa ngi prendre age xaw ma xam nga ko xaw ma xamoo ko. dëgg la war ngaa jël soxna. waaw waaw ñaanal ñaanal defal loolu waay. Ah. ma dem ñaanal la sax. papa li wax kontaan naa ci. ñaanal soxna de. papa pareel. baax na nag ci weeru koor gi. bu ma la bett. ah bu ma la bett. kon na kontaan naa ci gannaaw ñun ay gone lañu te bu ñuy yëg kenn du yëg waaye bu ñu daanoo rek ñëpp yëg ñu. fi dëgg la loolu dëgg la. ba tax na ma ne woon naa ñëw waxtaan ak yow. ndaxte Clarisse mii laa bëgg jël def ko soxna waaw dama bëgg ngeen may ma ko tey mu sëy si tey ma jël ko tey waaye yaa mën a fen tey yaa yombe tey waxoo dëgg yomb waay waay may ma rek yow rek yaa mel ni ku dëkk maa yombe nag ma takk ko tey mu si tey ma jël ko waaye yow yaa waaye dama ni booy yaa mën a fen looy mel ni ku ñaan ko amul mbokk mbaa ku bon mbaa ku kenn amul ci moom confiance Kalaris mi ndeyam boromi teraanga la boromi mbokk la sabaqa la xiina nga ne mag xew ne xajub xew kii <coughs> kii lan la ndeyam dafa joxe ay ndawtal ak xew diggaaleeg ñu baax joxente ay ndawtal nag njukkalanteeg ñépp kenn du ko jox kuy bëgg a dee mbaa ku tekkiwul dara ci dëkk bi jërëjëf Wassalam. jërëjëf. ko jom. Clarisse lan moo si sa ki? dama ko bëgg tey dama ko bëgg suba su ngeen ko mayee dinaa seeg moom su ngeen ma ko mayul dinaa seeg moom. ok loolu laa bëggoon. tànnaar na saf. bi ma lay wax naan la ay takkal jabar ak yooyu. waxuma la pour nga ñëw takk kii. mais man dama koo bëgg. déglu ma ba ma pare waaye yow am. yaa ngi dégg. li la Fall wax mi dëgg la. yaayam dafa digle jëflanteeg ay nit. ñu baax. yoo xamante ni def ma ni woon dafa soxla ay ndawtal. ndawtal lu ma ba pare. yow mii ku la xool xam ni yoroo ndawtal saf dox nga ba sa tànk booy. dëkkul ci kër. kenn xamul foo dëkk. dama bëgg nag à partir d'aujourd'hui nga toog seen kër waxoon naa la ko dinaa la ko waxaat. dégg la ma la wax loolu rek laa am lu may wax ak yow. caqat neex na li ma la ñamaloon fii doy la segam doy la. gis nga ñii rafetal dong moo tax ma ne la kañ na wax ak ñoom. duñ ci dara ay parents sous couvert la ñu ngi ni tekku ñu dara ci dëkk bi ay sukulan mani gis nga samay wajju ñu ngi bandar ñu ngi saint louis bu dé ñor na la té mu ñor la kessé solo say dal mu yobul ba foofu ñu mayema ci ni ba ñu mayema ci nalé man ni ma bañé ay mak yu stupid awma ma ay waajur yuy ndawtal wala yu am xaliss wala ya xam yeen nak ci wéru sel wi ñu nekk war ngeen xamni ay mak ngeen té sen ben tank mi ci buntu bamél fexé nu ngeen jamo yalla mu ndawtal leen yow mal xiyam àjjana moo gën ci yeen moom way bu ma mer bu wax de. yow amu lu wax ak yow te du ñamalon na la fi ku lo ma ñamal. maak yow ci mbedd mu fuñu dajé daje bu ma la bett. Eh, dégguma de waxo dëgg way waxo ki du sa morom way waxo dëgg. man xam ni bu may xam nga ni bu may discuter ak yow may. Eh, sa loo def waaye la rek man ni mo meuna a da ngay mën def lu bot waaw pousal Diop Diop kii am na lu mu defanteeg yow sama kanam moytul booy mooy moytul booy bii da ngaa wóor ba heure jot. baax na yoroo tàndar ma jox amoo tàndar ma nga amal ma tàndar yoroo tàndar ma.